bu njëkk bi mooy lu waral woote daje tey ak presse bi muy lu mu wax mooy ñaan jàmm ñaan jàmm ci réew mi laaj jàmm ci réew mi ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ko séq ku nekk am ci soxla te fekk ne li ngay laaj su ci jàmm amul mm, boo ko jotee du la jariñ te ñàkk gi ñàkk am jàmm jooju am lu bari loo xam ne nag mën na ko yàq sax loo xay xam ne xëy na ñoom seen xel àggul foofa ndax ñàkk am jàmm ji ci réew mi tey dafa waral ñi nga xam ne ñoom ñoo doon indi seeni alal di ko fi def ñoom ñëpp ña nga jàpp seen njaamur toog di dégloo koo ci ne dama bëgg signe ak yow contrat ca dama ko doon signer ndax il faut ñu xam ne lépp luy ñëw Sénégal muy lu ñuy jëfandikoo ci wàllu dund li ci gën a bari bitim réew lay jóge te li ko fi indi ci ay ngëm-ngëm rek ak confiance moo ko fi indi bu ma bëggee mu gàtt ñi am confiance joxe seen alal muy ñëw nag bu réew mi nekkee di xuloo ko xeex. ñoom dañuy téye seen alal yooyu buñ ko téyee kon dafa mel ne beneen jafe-jafe mooy dollikuwaat ci liñ doon wax moo tax ñu ne nañu ñaan jàmm ne nit ñi bàyyi seen xel ci ne ku yàq li nga moom boo xëyee boo ko soxlaa doo xam nooy def te confiance bi ñu am ci Sénégal 96 1996 bi ñu libéraliser à nos jours ci confiance la ñu nekk di dund ba nëgë ni ba benn pénurie yu musul am parce que xam ngeen ni luy dund réew mi ci loxo commerçant yi la nekk opérateur économique yi ko mën a nag 96 à nos ci confiance lañ doon liggéeyee ba léegi bu coow amee xeex am ay nit dee confiance boobu day yàqu parce que ñu doon liggéeyal dañuy téye seen i alal kon ñu ñaan ñi nga xam ne ñooy yëngut ci loolu ñu dal. ñu wut jàmm te xam ne xeex boo mas a gis lu mu métti métti ci taabal la mujj kon nag li ngay mujjee nga jëkkee ko moo gën a noppal ñëpp nañu waxtaan. inaa ko ne kon jot na nag nañu toog nañu wax ne nañu toog ñu waxtaan parce que lu ne mënees na koo waxtaane ba jàmm am ginnaaw loolu nag mu war a leer tey ci yenn fànn lu mu wax ci affaire prix yi xam nga depuis 2012. UNACOIS dafa benn convention ak gouvernement bi convention boobu lan moo ko war loolu mooy ne benn prix du yokk wàññi la ñuy def mais du yokk boobu ba léegi ñuy stabiliser prix yi ba Covid bi ñëw 2012 ba Covid ñëw benn prix yokkuwul bi Covid ñëwee indil ñu situation bu jafe boo xam ne ñun àdduna bi yëpp ko dundeendoo muy lu kenn mënul dara état def ci effort ci moment boobu lam doon am mu bàyyi ko. taxe yenn yi mu wàññi ko pour que yërëm population bi beneen problème ñëw muy guerru Ukraine li ñu doon jënd gën a yéeg dollar itam gën a yéeg mu nekkaat beneen metti metti état continuer di def effort effort yu état doon def mi ngi continuer di ko def ba bëri bërki démb ci koor gi mi ngi continuer di def bu ñu leen waxoon tey sukkër la ko état daan dédouané ñaata la ci daan am tonne bu nekk trois cent mille tey mu nekk moyen de cent vingt cinq mille kon état def na ci effort bu rëy pour prix yi egsi fi mu egsi waaye téewul gis ngeen ne bi mu cee am trois cent mille quatre cent mille ton sukkër mi ngi woon dans les quatre cent dollars tey dem na sept cent trente dollars kon dafay kon continuer def effort su continuer wul def effort population bi il faut mu metti ci ñoom ci koor gi nag effort bi état mujj a def taxoon na ñu mën a importer sukkër bi. jaay ko ba benn pénurie amul doon na menacé pénurie bi menacé na mais bi état defee effort rek importation bi su kër baa ngi fi ñu génnee ko jaay ko par rapport ak effort bi état def effort boobu nag bu ca continuer wul day gën a metti parce que kër dafa gën a yéeg certes état dolli na fukki dërëm ak juróom ci kilo boo daan jënd pour jéem mu kii waaye fukki dërëm beeg juróom li su kër yéegee daf ko mujj lekk parce que bi muy yokk loolu sukkër mi ngi nekkoon ci. dix euro tey dem na ba cent 730 euros donc y' a 20 yu ñëw ajouté donc 20 euro fukki dërëm 20 ou 20 euros par tonne kooku fukki dërëm ak juróom mënu koo compenser kon loolu difficulté la kon donc il faut état xoolaat côté boobu lan la ci mën a def ba mu stable loolu su ci état jàppul day gën a metti ci population bi ndax su kër su gënee manqué rek mu gën a metti loolu nag dafa jar dafa indi xalaat bu baree bari boo xam ne yàgg nañ ko wax état bi. gouverner c'est prévoir nit ki doo dem ba am benn obstacle boo teg nga dikk ba tiim obstacle bi ne ko tëb ko du ko mën a tëb mais da nga koy utal élan bu fekkee ne ci début d'année bi nga ma wax ne ma man lii ngay importer ci année bi dinaa man def samay programme ba mu wóor ma ne bu sukkër bi yombee dinaa mën a jënd man garde parce que sukkër waa ngi fi dinaa mën a jënd garde bis bu ma waree dugal ci marché bi ma dugal ci marché bi mais soo xaaree ba ne ma tey rek ngay importer prix marché bi rek laay mën a def or que prix marché suukar dañ lay déglu dañuy dégloo ni ñuy def marché xam nga marché bu tabaskee da gaa yi daañu xaw a yokk korite ñu xaw a yokk bu màggal amee da nga gis ne taxi yi dañu koy dañu yokk transport bi gàmm dañu yokk transport bi soo demee même ci yeneen pays yu dem ngi am ay aj wala ñu am ay jeux olympiques wala dara da ngay gis ne période boobu mooy période bi nga xam ne ci la ñuy gën a yokk la ñu doon dundee ñi def sukkar loolu la ñu ñu ngi toog di dégloo bis bu Sénégal soxla naa sukkar rek marché bi pay tëbandoo donc day tax ñu yokk seeni prix parce que ñiy def sukkar dëgg-dëgg daanaka juróomi compagnie rek lañ big five lañ leen tuddee big fives ñooñ ñooy ñi nga xam ne ñoo téye marché sukkar international bi yëpp ci seenu loxo la nekk ca baykat yi nekk Brésil ak feneen la ñuy jënd ji jënduñu sukkar dañuy jënd mbay ma transformé yore seen sukkar stocké fii stocké Lagos stocké ailleurs donc ñi ngi stocké di xaar su état bi ne soxla la rek joom seen yoon nekku ñu yokk te bu ñu yokkee on est obligé ñu jënd ci loolu kon donc il faut état prévoir su année bi dee jeex mu teel a jël mesures yi ne ku nekk lii nga war a importe mi ngi nii weer bi importer lii weer bi importer lii bokk leen fi nekk ak compagnie sucrière te du ko seene ba année bi jeex parce que compagnie sucrière dañ koo bàyyi woon lépp en définitive mu seere ko pour bu situation bu mel ni amee moom du am problème parce que fekk na li mu war a def yëpp def na ko mais malheureusement situation bu mel nii su amee day bàyyi ne maag ñëpp a yem da ngeen importé dama ki bërki démb ci biir koor gi rek bi commerçant yi di importé moom xam na ne sukkar day yéeg parce que xam na métier la bokku la commerçant bi nga xam day dem jëndi rek donc importé na sukkaram tey mi ngi teg te bu dee moom ak distribution bi ak marché bi marché bi du ñu am satisfaction bi ñu war a am parce que système bu mu jaayee bokkul la système marché bi te tey bu commercant yi bu ñu demee jëndi malgré li am nii jafe-jafe dina ba léegi kon état il faut mu xool nan lay defee planning planning ba buy joxe euh, li nga xam ne si moo tax nit ñi mën a importer sukkar bi mu préparer ko ci début d'année bi ba bu dikkatee jafe-jafe yi du am loolu état moo ko war a préparer donc su fekkee ni si loolu nag état defu ko nañ jàpp ba léegi ne. jafe-jafe mën na ñëw ci fan yi di ñëw ci sukkar bi jafe-jafe mën na ci am ndax tey prix yi état wax ne moom la ñuy jaayee sukkar bi en gros muy six cent seize mille ak fi sukkar bi toll ak liñ ci war a fay douane soo ko importé tonne bu nekk tonne bi nga jënd six cent seize mille soo ko jaayee mënoo ci am huit cent francs huit cent francs CFA cela suppose à quoi ma importé mille tonnes sukkar pour six cent seize million di wut huit cent mille francs CFA. six cent seize millions pour wut huit cent mille francs CFA mënul nekk amul kenn koo xam ne si mën nga def loolu ay jafe-jafe yu méttee métti la moo ci am te kon loolu état moo ko war a prévoir leneen li defe naa ne sëriñ dina si ñëw li jëblu ci wàllu marché yi wàllu sécurité bi sérieusement parlé inquiétude bi ñu am defe naa ne ñiy def ñiy jëm ci marché yi ak yàq yi ñu yàq sa amuñu ko nit ki suñu xasee ba yàq-yàq commencé am marché bi tëj fournisseur bi ma daan lebal man nanguutumaa lebal sama banque taxawuma pour ma fayti mënumaa liggéey kon population bu ñu bëggee lu ñu lekk fan lañu jëm am na ñu toog seen kër yi parce que lu ñu lekk am nañu lu ñu naan mais suñ amatul lu ñu lekk lu ñu ak lu ñu naan lu ñu def dañuy génn ci mbedd yi fekk nga xam ne ñoo ne ci mbedd mi il faut faire am na loo xam ne jàmm kenn du ko fooyee lu waay jënd jàmm jàmm jar na ko te am na loo xam ne si foowee jàmm la donc il faut que marché yëpp ñu sécuriser ko comme nu ñu sécuriser yenn point de vente yi duwul am na benn opérateur économique bu yeyoo ñu sécuriser la bàyyi sa moroom ci kon war nañoo sécuriser marché yëpp ba ñëpp ku xëy da nga mën a ubbi da nga mën a jaay population bi lu ñu soxla daañu ci mën a jot donc lii mooy inquiétude yi nga xam ne si moom la ñu amoon ñu ne nañ ko wax en général et en réalité et pour pour pour tëj mooy jàmm jàmm moo gën lu ne jàmm ci la lu ne xaj su amee yeneen point yi nga xam ne si war nañ ko leeral su amee ay question ci yooyu daañ ci tontu jërëjëf jëf asalaamaaleykum